yi Dakar ñu ngi leen nuyu baax baax leen ziar tey ñu ngi fii Kër Massar seet si ku ñu wax Serigne Khadim Faye borom jagle yi Serigne Khadim ñu ngi nuyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi ñu leen nuyu di leen siyaare di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ak foo mën a nekk yaa xam biir réew mi la wala bitim réew di ñaanal ñëpp jàmm tawfiq ak Cheikhul Khadim. Euh, Hmm. waaw seet xam nga soxna si dafa doon loo xam ne ni ko ñi ñu yombale yombewul noonu waaw ñi yomba ni ñi ñu yombale seet dëgg yombewul noonu xam nga seet bu wér ak ku yor xel mu neex daa bokkut ñun bu dee seet ñaari façon yi la ñuy maanaam koo xam ne mi ngi fii Sénégal ñëw ba suñ kër toog mu seetal ko soit muy koo xam ne dafa nekk bitim réew comme mën di doon listixaar euh, mën nañ koo def euh, comme seet ci raml mën nañ koo def jëfandikoo ay lu mel ni ay ilmu jóoma xeet yooyu xam naa daanaka du jar di xóotal sax waaye seet moom mm, niñ ko yombal daal yombewul noonu ñun nag suñu borom def na euh, duñu wax ne nangam ñoo ko fi dàq ndax loola ñu xam ci réew mi lañ ko xamee te ñaa ñu ko xamal amaana farlu gañ am ñun ba dem foofa sàkk ko am na ñeneen ñoo xam ne am nañ farlu googu kon duñ ne nangam ñoo fi dàq waaye daal alaakulli xaal seet moom man nañ ko te it lañ koy def bu baax a baax a baax te ku man ku mën di doon it boo ñëwee yaay wax sa aajo di nga bëgg ñu seetal la ko bu dee aajo aajo la jox na nga ko am ne naa aajo sàngam laa bëgg nga seetal ma ko ba xam li sëy booy waaj a dugg lii baax na sama diggante dang daw si baax na naa meki nangam société bi may waaj a ubbi affaire yooyu yaay daal li nga bëgg ñu seetal la ko bu ko bu ñu ko xoolee bu dee am na ay sarax yu ci war ñu wax la nga génn say sarax bu dee amul ay sarax yu ci war it ñun bu dee am na ay càngar ak xeet wala yeneen saafara yooyu loolu ñun ñoo koy seetu incha allah moom lañ ciy doxee. càngaayul ubbiku waaw dañ ci yëngu bu baax eh, xam naa mm, fi ngeen ma fekk moo tax waaye am na am na am na nu ngeen ma doon fekkee danaa leen dugal ci ruq ba woon leen mm, maanaam yooya nga xam ne. mooy lu jëm ci wàllum ubbi cangaay maanaam seytaane cangaay arab ak yooyu xam naa dinañ ci ñëw ci kanam ci kanam waaye comme ubbi nga ma laaj dañ ci dox bu baax a baax a baax ubbi nag dafa doon ay façon yu bare bare ndax tëju daa am lu koy waral léeg-léeg man mos naa ko fii yaakaar naa yéen laa ko doon waxtaanal ubbi balaa moo am tëju mooy njëkk am ba noppi léegi nag balaa moo balaa ngaa mën a tijji nit ki day baax nga xam lan moo ko tëj d'abord ndax caabi nekk am na buntu bu muy tëj caabi jooju bu tëjee buntu booba caabi jooju képp moo ko mën a tijji dégg wax ci bu baax doomu aadama bi léeg-léeg sobe su bari mën na kaa tëj mooy yàlla gu bari wala maanaam mu doon koo xam ne même sax bu dul mooy yàlla ci ay cër gi demee noonu da dul jaamu yàlla te it li war ci ak sell dëgg diggante am boromam da ko du def benn ñaare ba mooy tooñ gu bari day tëj nit waaw tooñ gu bari day tëj nit te ñu bari bari xamuñu ko àq ji ngay yoral doomu aadama yi nga xam ne maanaam yaa ngi ne ci koñ bi di perturber ñi ñi di la maanaam di am ñi ñu àq loolu boo yàggee day tëj sa bunt yi wërsëg bu baax a baax suñu borom bëggul kuy toon julli ñi mu ñaar ñette mooy ki nga xam ne daa amee ay waajuram àq loolu tamit day tëj buntu wërsëg bu baax a baax a baax a baax bi ko ñeenteel mooy ñaari way dencante kenn ki jekk-jekke war moromam ci lu dul yoon loolu ñaare bari waa nga gis jigéen koo xam dafa jekk-jekk abandon li borom këram maanaam jëfandikoo loo xam ne daal xay na ci baareex bakkan la ko teg waaye du tooñ gi ko tooñ ba tax mu def loolu kooku alaa kulli xaal ba afanté dana ko gis ndax suñ borom bëggul koy war moo tax yooyu day tëj bunti wërsëg bu baax a baax a baax léegi nag bu dee nga xamante ne nii maanaam maanaam dafa doon dafa tëju ci ay diggante waajuram nangam ak nangam bu ñu fexee ba xam loolu dañuy fexe mu dem jégul ay waajuram dégg nga yóbbaale benn addiya bu am solo bu àggee ñu ñaanal ko kooku jur muy dem ci sëriñ mën nañ bu ay waajuram ñaanalee rek léppam day daal di baax waaye bu dee ki nga xamante ni nag rawxaan moo tëj wala jinne wala rab wala saytaane dégg nga wala yeneen yi nga xamante ni maanaam euh, xeet yu demee noonu la kooku bu ñëwee am na ay roq yu njaaram moom ba macha allah alhamdulilah. waaw bayre dañu ko bëgg moom waaw waaw. nag moom façon yi ci am moom daa bari daa bari te bokkul ndax li ci jiitu rek mooy. léeg nga gis ci góor ñi góor goo xam ne ñaawut daa rafet macha allah ñàkkul xaalis dégg nga soofut waaye bu jigéen gu bëgg rek day bañ jigéen gu bëgg day bañ moom man day toog sax di laaj man man man lu xew lan laa def ba mu man jigéen ñi mënuñu maa bëgg kooka. il faut ñu defee ko bayre jigéen boo xam ne moom mooy a jigéen ñi mën kaa jublu ndax mooy tax mu a am soxna ndax jigéen ñi la bëgg du am soxna comme góor ñi tamit maanaam comme jigéen ñi am na ñoo xam ne góor ñi du leen jublu te mën naa am sax ñaawuñu ñu ne waaye ñoom boo leen gisee da yaakaar ne góor ñaa ngi di ko génn waaye fekk na kenn néew fa ndax am na lu dox diggante ma jigéen diggante ma góor ñi léeg-léeg mu doon ñàkk bayre léeg-léeg mu doon rab waaye bu dee ki nga xam ne dafa ñàkk bayre ci fa ñaari ñaari yooyu ma wax am na yoon woo xam te ni spécial ñaar yooyu kese ñoo ko tax ñoo ko a jóg wala ki nga xam ne day liggéey exemple bitig la yore magasin la yore taabal la yore cantine la yore dégg nga wala atelier lu ci mën di doon te mu bëgg nit ñi di ñëw am na yoon wuñ ciy jaar ak moom woo xam ne bu ñu ko defee lañ ko def ba noppi barab bu mu mën di nekk loola ci kattanu suñu borom duutu ñàkkati ay clients incha allahu taala waaw ba ci ñi nga xam ne sax dañuy jëng ci wàllum média bëgg nit ñi di leen gis ñuy siiw moo xam muy théâtre yeeg musiciens yeeg nangam ak nangam bëri làmb yeeg yooyu am na ci ñoo xam ne maanaam tubarkalla daal macha allah bu dee wàllum bayra daal moom am nañu fi am am solo yoo xam ne moom ku ko takk moom boo amul kaara ko tekki <laughs> waaw macha allah waaw. dafa war a ànd ak kaaraange loolu sax xam naa dina dina dina tax ma man laa wanaale lii ndomba gi moom mooy ndomba ndomba ndomba ndomba xejj gi yii yëpp yëpp moom la waaw yii yëpp moom la maanaam li fi nekk ci biir daanaka man man maanaam mën na cinquante li fi nekk ci biir daanaka man na cinquante ndomba yoo xam ne yëpp mooy mooy mooy bii kii la ñuy wax ndomba xeej ji ndom xeej ji ndomba gi képp koo xamante ne suñu borom dogal na nga am ko da nga am bayra nga am kaaraange ñaar yëpp la boole dafa am ak ndomba gu ne ci biir am ay téere yoo xam ne moom moo ko wër téere yi ay bayra la ndomba gi ci biir kaaraange la kon boo ko takkee dangay am protection da ngay am bayra da ubbiku da am am bayra moom la wax ndomba xejj gi képp koo xamante ne suñ suñ borom dogoon na nga doon koo xam ne da am ci yëngu te bëgg maanaam jékki sa biddiw feq nga siiw ñi ñi di la bàyyi xel dégg nga xam nga léeg nga gis ko day day jékki-jékki rek mel ni bombe bu explosé ñëpp jékki-jékki xamandoo ko esthéti yi di ko def ñi ko def xam nga li ma wax Facebook bi ak WhatsApp bi fépp mu ne xam nga te doon na koo xamante ne ñett fan ci ginnaaw wala ñeent fan ci ginnaaw kenn xamu ko woon siiwut yu mel noonu day am kii nag moom macha allah daal xam naa daal lu ci sore waaye kattan suñu borom daal ku bëgg bayre ak bu ànd ak kaaraange moom boo ko amee di nga di nga sant waaw jaaro bi moom <laughs> xam naa li li may bëgg sax di ci wax bariwul ndax jaaro yi léegi daa bari waaw jaaro yi léegi dafa bari lool te nit ñi maanaam kenn mënu leen a nax doomu aadama yi kenn mënu leen a nax wala boo koo nax benn yoon doo doo ko nax te comme xam doo ko naxati moo tax eh, jaaro bari na bari goo xamante ne ni la ñu ne jaaro yu ñuy ñuy liggéey wax dëgg neex yàlla ku ko bëgg te ñu wax la condition yañ koy liggéey te nga mën ko mënees na la koo liggéeyal dañ koy liggéeyee nag am na ci lu ñu wax tobb Dakar tobb xam naa yéen du ngeen ko xam <laughs> waaw yéen waa Ndakaaru du ngeen ko xam ndax bariwu fi waaw bariwu fi waaye mooy garab goo xam ne maanaam nga def ci garabu Dakar fekk geneen garab saxaar ci kawam ci benn ci bànqaas bi loolu loolu la ñu wax tobb loolu nag dafa am ay mbir yu baatin yu bare bari yu ci laxas yoo xam ne sëriñ si nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum asraar xam nañ ko bu baax a baax moom tobb bokk na ci lañ koy liggéey ak bakkanu lenn ci bakkanu bukki waaw bayral laal boo xam ne macha allah moom ku ko am moom tubaarkàlla ki nga xam ne mënut a takk ndomba mën nañ ko defaral jaara bi waaye jaara bi nag moom yombut dama ko teel a wax bu dee koo xam ne nag jaara bi dis na ci moom bu dee bayre rek am na saafara soo xam ne nii dañ koy joxe ci wàllum bayre waaw maanaam yombut daal lu ma wax seer na waaye yomb daal defu ko <laughs> waaw yomb ndax lañ lañ koy liggéey daa jafe waaw togg togg Dakar dafa jafe waaw. bukki. bakkanu ciy am. waaw mais bukki boobu noonu bay na bukki boobu est-ce que boobu est-ce lii lii nii am na bayra bukki waaye taxuñu naan bayra bukki bayra bukki am nañ ci beneen boo xam te ne bayra moom la ñuy wax bayra bukki spécial kooku ndombal boo xam ne deru deru bukki lañ koy lañ koy awee deru bukki moom lañ koy awee kooka loolu moom dañuy wax ne ñun duñ ko jox mukk koo xam ne amul lu mat vingt cinq ans jëm kaw boo ñëw sa carte d'identité nga indaale parce que léeg-léeg nga gis bu njëkk dañ daan dañ daan am nit ne la waa man am naa vingt sept ans nangam sangam waaye boo ko xoolee rek da nga xam ne kii li mu wax moom waaw léegi moom ni ni ñu mujjee def mooy bu dee da nga nekk ànd fu sori ñu pour ñu yóbbante la ko da ngay sa carte d'identité ma ko ma xool sa date de naissance dee koo xam ne matal la ko ñu liggéey ko bu dee ko xam ne matalu ko duñ ko liggéeyal ndax maanaam euh, koppar yooyu nga ñuy jox duñu jaral mukk ñu doon lor yow te am na ci loo xamante ne bu ñu la ko defalee it loraange képp la lay jural ndax làmmiñ yi dégg nga am na ci at yoo xam ne boo ko amut am yenn gàllaaj yi da ngay sa bopp kooku dara àdduna jëru ko moo tax am na at yoo xam ne boo ko amut duñ la ko duñ la ko duñ la ko jox moom moom bayra bukki boobu waaw moom ñoo bayra bukki damay faj damay faj rab bu baax waaw xam naa damaa xamul ndax yéen ndax gis nga caméra ay caméra fii man bu dee koo xam ne daa amee rab bu ñëwee fii bu ma koy faj dama koy filmer du ma génn kanamam nag waaw dama wax damay wax gone yi bu ñu génn kanamam waaw ndax loolu sutura waaye pour preuve parce que Sénégal léegi dafa bëri ay naxaate a ah, bëri ay naxaate kat te dafa bari ñu reew ngeen baal ci kàddu gi bari na ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom dafa dogal yërewuñu ba fuñ mën di dem ak luñ mën di jëf ak luñ mën di wax reew gu reew ne ko doo ciy àndaale boo taxee ne mën naa faj rab rek te wane woo preuve bi wane ko da gis benn waaye bu taxaw fa ne naan li muy wax du dëgg nangam ci nangam te amaana sax moom amuji lu ko leer waaye ak reew moo koy poussé léegi nag bu ne lu mel noonu am nga ko maanaam preuve boo xamante ne moom mooy wane ne yow li nga wax nga ko moom mooy tax kooka na bu dee suñu borom dimbali na ko loola loola mu waroon wax du ko du ko du ko du ko wax te loolu day yokk bàkkaaram rek eh, ñu jaar ñu jàll foofu bu dee wàllum rab ki nga xam ne da koo jàpp wala ba mu tàqali ko xelam bu dee raba ko jàpp bu ñëwee balaa moo dem dana ànd ak xelam ma dina wér de waaye balaa mu ñibbiwaat dana xelam su ko defee ay traitement ba mën a wér bu fekkente ne ni xam parce que rab ak jinne bokkuñu ba léegi dafa am tuuti différence am na am na am na différence tuuti bu dee koo xam ne jinne moo ko jàpp it noonu la ñuy doxee moom waaye rab. am na ci ñoo xam ne dañoo samp dañoo samplu wala boog seen maam seen maam samplu woon rab maam ay xàmbu wala seen bàyyi wala seen yaay su defee am na ci ñoo xam ne rab yooyu noonu seeni waajur amoon day mujjee ñëw ci ñoom léegi nga gis ci koo xam ne moom xamul luy samp sax far xamul ne ay maam amoon nañ loolu xamul ne ay amoon léegi bu fekkente ni moom ñoo ñu ko topp moom xamu ci dara su ñëwee ñu bu ko xoolee ba xam ne loolu la su fekkente ne mën nañoo dem ci dëkk ba bañ fañ ko sampoon simple ko te ña ko sampoon nangu nañ ko dañuy dem simple loola ndax alxuraan moo ëpp loola rab te ñun ci alxuraan la ñuy jëfandikoo dañuy dindi loola ba mu set wicc rab yooyu ñu dàq leen foofu ñu jege foofu ñu dox digganteem ak ki nga xam ne moom lay loro bu dee loolu mënta nekk it am na yeneen yoon yoo xam ne mën nañ ci jaara moom waaye wee daa gën a gaaw moo tax waaye am na yeneen yoon yoo xam ne mën nañ ci jaara moom ko définitivement dootu ko laal dootu ko xoolati waaw soo nii rek buntu kër gi sama kër boo génnee bunt kër bu xonq ba ngay jàkkaarloo am na benn xale bu jigéen boo xamante ne fan yii rek ñëwoon na fii daa génnoon di am lu mu doon uti rek ci mbedd mi noonu rek arab jàpp ko daane ko ci timis gi même jour xelam dem gone yi fekk fekk nañ ko yàlla xam na ko mën naa laa envoyé dem vidéo ndax moom filmé naa ko waaye wane ma kanamam bi mu ñëwee bi ma bi ma waxee rab bi daf ma ne kii topp ma ko tey nee na ma bi ma topp bi at mi ma wax naan ne moom moom la topp daal bi ma ko bi ma ko calculé ak 2019 na ay 16 ans 17 ans diggante boobu mën na ko Casamance la ko topp moom Casamance la yoroo waaw ci jour bi la ko bàyyi laa wax ak moom ba mu bàyyi ko ma ne ko nag bu ko jàppati mu ne ma man sax léegi damaa bëgg far nekk jullit ñu tuubee ko def ko jullit parce que ñoom dañuy dañuy da maam xam nañ xam nañ li xew xam nañ ne liñ nekk baaxut waaye am na ci ñoo xam ne ay yéefar lañu lañ nekk comme nit ñi rek am na ñoo xam ne ci ay biir nit ñi lañ nekk lu bon la xam nañ ne lu bon la waaye da leen a gënal lu baax dégg nga boo leen di waax sax da maam maam dañ leen ci foto waaye am na ci ñoo xam ne it lañ nekk du baax baaxul waaye bëgg nañ cee génn te gisuñu ko lañ bëgg a génnee comme noonu lay amee tamit ci biir rab yi ak jinne yi seytaane yi noonu la ci amee moo tax bu fekkente ni rab la ñun buñ ko fajee ba dindi ko bu fekkente ni man nañ ko dañ koy def ab jullit far nga xam ne kooku moom day defaree ji waaye dootul yàqali kenn moom lay demee waaw pour quand Taib euh, man bëgg sax di ci wax ndax Taib Socé man xawma ko wax dëgg neex yàlla gis naa ko nii rek ci tele bi mm, wala ci rajo yi ma koy dégg yooyu waaye wallahi yi masuma koo gis te sama bët mos a tege ci jëmmam waaye xam nga dafa am sénégalais yi dañoo gaaw a fàtte sénégalais yi dañoo gaaw fàtte man nag alxuraan laa koy waate ne jàmm kese laa ko yéene jàmm kese laa ko yéene waaye gis nga doomu aadama ràññee ak xàmmee dafa am solo te yib soose mas na fee wax dara ci ku tedd ki seexul xadim ba amal fi problème ak murid yu baree bare bare ginnaaw bi tuub na jéggul waaye ndax nam tuube na la war a tuube néew ma nag moo waral lii lépp am waaye nitu yàlla booy wax ci moom fexeel ba say wax na ànd ak teggin na wax ci moom rafet ndax kooku mu doon maanaam jiima doya dal ndax jiim jiim laa ko tudde ndax mënu ko moom moo wax te gën xasidaam ne biraasu man baarase nii biraasu man yu baarisul mun taqi man baari man képp ko koo xam ne jóg nga ne da ngay da ngay jàkkaarloog man kooka nekku ne sama jëmm nga jàkkaarloo man Cheikhul Khadim suñ borom nga amal affaire mais pas man moom moo wax loolu mu amoon wax yu mu wax passé na jur ñu ci jaaraat waaye ba mu ko waxee dëkk bi yëngu woon na murid yu bare bari mere ko waaye su doon may moom damay dem ba ca xalif ba ma wa jéggulu ko mu jéggal ma ma tuub fa fas yéene nag sellal sama diggante ak Seexul Xadim moom nga xam ne moom la wax na wax ji mel noonu waaye gis nañ ne lam war a def da kaa defut néew ma nag moo ko waral ba léegi waaye léeg-léeg nit def loo xam ne borom xel yi kat ay xalaat ay xel lañ am képp di xalaat dégg nga jullit la comme ñëpp li ko dal nii képp ku jullit mën na laa dal ndax Cheikh Khadim moom tey dugg nañ ko kaso kaso jombul kenn waaye daal nañ xam ne daal suñu waa duñu ko ñu fowe dégg nga mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal fii maa ngi ci e, nuyu e, waa association boobu ñuy wooyee yes ci sëñ maam seex Mbacke jiite ko nga xam ne ñoom ñooy sàmm na ndonal mag ñi ku ci mel ni Alaaji malik Si Baye Niass Cheikh maanaam e, Cheikh Bou Kounta mag ñooñu ñooñu nga xam ne dégg nga ay mag lañ nekk Sénégal ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal seeni ndono ñoom ñoo koy sàmm kenn wax ci ñoom lu ñaaw kenn def ci ñoom saa waxee rek ñoom ñooy jóg ñooñu kenn amu seen fay moo tax lu mel noonu dafa mat di xel loolu loolu ñu liggéey ñun ñëpp dañ koy liggéeyal kon nag bu fekkee ñun dañoo bokk ci njaboot gi ba noppi wëlbatiku nag di yàqaat di wax ci Sëriñ lu mel lu ñàkk wala ci Alaaji Maalik wala leneen a leneen képp ku ko def na la wóone sa bise ñëw yàlla na suñu borom tegg nattu bi li nga xam ne moom lañ koy dajaleel ah man du ma ne dajale bi ko def ndax loolu dimbali ku ku ku ku néew doole la. waaw xam nga ama xalifa ñees ama xalifa ñees man damay faral di wax ne <laughs> maanaam dafa doon kilifa goo xam ne ñaare man ay waxam du bëgg sax di ci di ci di ci di ci sori ndax euh, suñu kilifa la waaye léeg day wax wax joo xam ne ñu bare bari ci Sénégal yi duñ duñ ci ànd ak moom. te comme yàlla dogal na kilifa la mooy li ma waxoon léegi kilifa moom man du ma bëgg di parce que man dama wax juum wax lu mu woote wax ci moom su boobaa ay rëccu rëccu rek la may indil moo tax du bëgg di sori ci ay waxam waaye daal doomu aadama ba mu mën di doon boo nekkee ci ay tolof tolof soxla nga ndimbal soxla nga ku la dimbali dégg nga kon loolu ñu doon téléthon boobu ñu ko doon defal noonu man du ma ne waruñ koo def dégg nga ku ko mën a jàppale bay ba jàppale ko waaye daal li ma li ma koy ma koy li ma koy dénk moom moom Taib Socé moom mooy sëñ tubaa du moroom sëñ tubaa du moroom loolu laa koy dénk na xam ne borom tubaa doonu ku ñuy fooye doonu ku ñuy kël-këlee loolu daal la am ci lu may wax ci lu may wax ci moom yàlla suñu borom teg na tubeg jàmm ba mu nekk ca ba mu dellu ci ay activité mu dellu ca lam nekkoon suñu borom sàmm ko te aar ko te nag yàlla def ci moom xel ba mu comprend kan mooy Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu